yal na yàlla yal nañ dem ba bokk ci ñi nga xam ne daañu nangoo joxe seen i alal ci jaayante ko nangoo joxe seen i bakkan ci jaay ci diine bi dafa inna allaha stara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna moo tax Hamza bañ ko reyee daggite ko daggite ko ay cër rey wa ñaaw loolu ñu ne alhamdulillahi rabbil alamina fa inna masira wal janna muminu yasin bañ ko ba ko yéefar yooyu rey di cëppi cëppi ci kawam bëgg ci jiite ah, ñu ne rey nañ ko rey bu ñaaw qiila duxulil janna qaala yaa layta qawmi yaalamuuna bimaa ghafara li wa ja'alani min al-mukramiin ñooñu buñ nangu ñu gën lañ doon défendre ñoo fi wutu diina nag bu fekkee ne jaralut la sax nga sa sa ceeb nga ñàkk ko sa ceeb na ñàkk ko nga ñàkk ko diina du taxawee ci seen diina ay naxante du ko taxaw te li muy dund la. ay julli ci kese àndandoor di daganal lépp lu yàlla xaraamal di tere jaar fi yàlla jaarul ma ne loolu ay naxante la nañ leen delloo suñu bopp ci ilallah wa tuubu ilallahi jamian أيها المؤمنون لعلكم تفلحون استيقظي يا أمتي يرفع القرآن وحطم الأوثان يرفع القرآن وحطم الأوثان وحرر الإنسان من قبضة الطغيان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي ñoom ñii tey def seen bopp ay bailleurs sénégalais yëkkati seen poste def lu mel nii ak fee bëri ak fee bëri sax ñu leen ëpp kàttan kon li misli haza fal yaamali al aamiluun ñii kër kër yi nañ kër kër ci lii ñiy def ca làmb ya di baatira ca soraano di baatira ca musique ba yoon waa ngi nii ñii de kuñ ne gëm nañ yàlla kenn du ko sikki sàkk ñi ñi mel ni ñoom kat man lii ñu man bëri na lool ci réew mi kon ñi man yëpp su fekkonte ne seen xel xelaatee ne nii ci yàlla subhanahu wa yaakaar naa duñu soxla ay bayeer yu bàyyi ko ci biti ñëw duñu tabaxal النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان في ساحة الإيمان يرفع القرآن وحطم الأوثان يرفع القرآن وحطم الأوثان وحرر الإنسان من قبضة الطغيان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي يرفع القرآن وحطم الأوثان يرفع القرآن وحطم الأوثان وحرر الإنسان من قبضة الطغيان من قبضة ñoom ñii tey def seen bopp ay bailleurs sénégalais yëkkati seen poste def lu mel nii ak fay bëri ñu ko ak fay bëri sax ñu leen ëpp kattan yakun li misli haza fal yaamalil aamiluun ñii kër këri nañ kër këri ci lii ñay def ca làmb ya di baatira ca soraanu di baatira ca musique ba yoon waa ngi nii de ñii de kuñ ne nañ yàlla kenn du ko sikki sàkk ñi ñi mel ni ñoom kat man lii ñu man bëri na lool ci réew kon ñi man ñëpp su fekkonte ne seen xel xelaatee ni nii ci yàlla subhanahu taala yaakaar naa duñu soxla ay bayal yu bàyyi ko ci biti ñëw duñu tabaxal iman fi saaxati iman an yarfau alquran wa xatimu alawthan an yarfau alquran wa xatimu alawthan wa xarriru alinsan min qabdati الطغيان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي di sante nag sunu ndaw ñi muy sëriñ Mbay Sa Fall sëriñ Mouhamadou Ndiaye ak ab sëñ Abdoulaye Touré waaw sëñ sëñ sëñ sëñ moo nekk noonu ñoom ñaar ñii ñooy ñooy bayeer lii dafa tumuraanke ci réew mi kon buñ gisee ñoom ñaar ñu def lu mel nii dañ leen di sante suñu borom subhanahu wa taala ndax ñun ñi nga xam ne fi mu ne ay mag lañu suñ demee ba yàlla subhanahu wa taala ci dogalam mu andil ko ndaw ñu mel nii nekk ca marché ba nekkal fa daara ja di góorgóorlu ci seen man-manu àdduna ba dërëm yu mel ni rotee ca ñu mënoon a xela ndax lii ay magasin yu bari la magasin bu nekk buñ ko luyee woon tey ca marché ba lam leen di indil ci koom-koom lu bari lay doon waaye nag yal na yàlla dugal lii ca la suñ borom subhanahu wa taala waxoon ne yarjuuna tijaaratan lan ñii de ñu ngi yaakaar commerce moo xam ne fa yàlla du lamb mukk yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.